législateur di ko di ko ko tere ba ñuy tëgg ba ñuy tëgg constitution yu njëkk ya 1960 ba léegi dañ ko koy tere lu tax ñu jékki-jékki bugg ko ko jagleel c'est ça le problème lu tax ñu jékki-jékki bugg néewal di solution assemblée nationale lu toll ni pencu ndawi réew mi nga xam ne Sénégal yëpp ñoo voté ni ñii ñoo ñuy représenté ñii ñoo ñuy toogal nga jox nit koo xam ne remplaçant la nga xam ne loi daf ko ne rek yow toogal fii pour organiser ay élections ñu am président bu bees nga permettre ko mu def loolu loolu lu garaaw la ci suma gis-gis. bon maa ngi koy jàngat leeragul torop ci suma bopp maa ngi koy jàngat je pense que fii leeg fii leeg ki fan dinaa comprendre dafa complexe dafa complexe foog nga xool bu baax mais en tout cas ci njëlbeen ga li ma gëmoon li ma gëmoon mooy que ne njuumte la woon mais bi ma déggee. ñu bëri wax ni euh, pour man euh, lu ñu bugg la lu ñu bugg la euh, pourquoi ñu bugg kii remplacer président de la république bu amee parce que ñaanuñ ko yàlla président de la république dara di ko dal ba bañ koy remplacer bu amee ñu permettre ko mu dissoudre assemblée nationale affaire bu graaw la parce que mun na indi mun na indi vide juridique parce que nit ñi dañuy wax trois mois la rek mais. <coughs> xam nañ délai nuñ koy étirer fii ci dëkk bi am nañ toujours ay moyens pour étirer ay délais pour xëcc lu waroon nekk trois mois ñu def ko six mois mu jëm gis ngeen élection yi rek mu jëm at lée léeg ba ñaari at donc moo tax législateur bi defoon encadré woon ko noonu pour que yenn yi mun a bañ a nekk. Euh, euh, euh, wax waaw waaw waaw. pour le pour le moment waxtaanaguñ ci waxtaanaguñ ci parce que depuis séance boobu tooguñ waxtaan gisantewuma ak ñoom. Euh, non non non oo oowuñu ma oowuñu ma parce que ñu ngi woon continuer woon ci liggéey bi démb rek ñu ngi woon encore commission technique di xool ay loi de ratification yi war a def. non no non fooguma ne foog xam nga loolu liggéeyu parlementaire la xam nga député amul mandat mandat mandat obligatoire. donc député moom du du groupe parlementaire moo koy wax defal lii defal lële euh, li may def dama koy def ci suma aqlaay tàlla di ko def parce que loolu laa gëm ni moo baax pour Sénégal donc bu ma keneen expliquer que ne li nga def baaxul ak ay argument yu leer damay dama ciy d'accord mais pour le moment euh, gëm naa ne que position bi ma jël mooy position bu baax bi jusqu'à preuve du contraire waxtaanuma ci ñoom xëj na suba dinañ gisante am nañ plénière suba non non non jafe-jafe moom mënul am jafe-jafe mënul am parce que xam nga euh, man maa demandé pour dugg ci groupe parlementaire bi donc damay respecter structure bi mais comme ni ma la ko waxee voter da nga koy def en ton et conscience booy booy booy booy liggéey liggéeyu parlementaire nit warul a tënk donc dama nekk ci groupe parlementaire bi parce que je suis un homme di obéir à la marche du groupe parlementaire par exemple bu ñu ma ne tey doo jël parole du ma jël parole parce que groupe bi dafa day def débat organisé ñu ne kii ak kii ak kii mooy wax mais su ma waree jël parole li ma xalaat laay wax kenn du kenn du dugal dara ci suma génne waaw loolu tamit euh, may wax encore une fois amul benn nit bu ne bu mun a taxaw ne ñi nekk assemblée yëpp dañu war a voter lii donc ñoom dañ def ak seen xalaat nañ bàyyi ku nekk tamit xalaat def ay conviction yam doog a jël position man loi bi biñ koy bind euh, ci euh, principaux instigateurs yi ku ma jege la assemblée nationale muy Alioune Souaré dañuy waxtaan Euh, tout le temps guddeeg bëccëg bu amee lu muy saytu daf daf jox ko ak man bi muy bind loi bi yónnee na ma ko pour ma jox ko ci suma avis jox naa ko ci suma avis loi bi duggagul assemblée nationale donc dernière mouture bi yónnee nañ ma ko mais euh, j'avoue que liiraguma ko ah amaguma woon joti liir ko parce que diggante ñaari fan yi lañ ma ko yónnee Euh, président Mamadou Lamine Diallo moo ma ko mujj yónnee Alioune yónnee woon na ma ko déjà président Mamadou Lamine Diallo yónnee na ma ko démb mais comme ni ma ko waxee diggante ñaari fan yi dafa xatoon pour man te loi bu complexe la dañ war a toog jàngat ko bu baax donc amaguma ci avis mënaguma ci am avis mais damay prévenir sénégalais yi wax leen que ne amul benn loi boo xam ne waa Sénégal yëpp 17 million de sénégalais yi dañ ciy d'accord donc nañ def attention. mbirum góor jigéen baaxul phénomène de société la mais criminalisation lu ñuy jàngat la munoo jóg nga ne lu ñu indi parce que ñëpp d'accord nañ ne ka baaxul dama koy voté wii non non foog nga xool loi bi xool lan lañ ko tëggee xool lan lay viser xool exposé des motifs yi et cetera et cetera xool article par article ndax baax na at est-ce que amul luñ ci war a changer loolu yëpp dañ ko war a jàngat man député la mais d'abord scientifique la du ma plonger ci benn affaire boo xam ne damay damay jël suma responsabilité nag kenn mënuma voté loolu lu ma gëmul kenn waaw du mënaas du xoqatal du yuuxu ah. ah non non non gis naa gis naa nit ñi ci réseau sociaux yi ñu naan waaw loi bi ku ko voté wul da nga ànd ak góor jigéen ñi non non il faut qu'on arrête ça menace yooyu ça ne marchera pas booy voté loi da nga koy voté enton ton âme et conscience da ngay voter tamit parce que da ngay consulter sénégalais yi xam nga ñun ma ma ma koy fàttali bi may dem assemblée nationale dama ne je représente je légifère je contrôle man tooguma assemblée nationale parce que Théodore Chérif Monteil coobare boppam moo ko fa teg sénégalais yi ñoo ma fa teg bu fekkee ni ci suma waxtaan ak sénégalais yi dañ ma ne loi bi moo ñu gënal dinaa ko voter dinaa leen décortiquer loi bi nag wax leen lii ak lii la loi bi wax lan ngeen ci xalaat. ñu jox ma seen yóbbal ma yeggale ko fukki fan doy na ci pour jàngat ko bu yeggsee assemblée dinaa ko commencé jàngat fi mu nekk nii bu yeggsee assemblée nationale ma continuer ko jàngat et puis bu heure vote bi jotee ma xam ban position lay jël. waaw dama koy wax toujours amnistie dafa baax ci dëkk xam nga. Euh, ñi tabax contrat sociale bi ñi tabax contrat social bi dañu wax grâce ak amnistie grâce ñu ne mooy baale fee yi du disparaître mais dañ lay baal la nga defoon mais kenn du fàtte la nga defoon amnistie dañuy fàtte affaire yi dañuy fàtte jëf ji amnistie duñ ko jagleel nit ay fee lañ koy jagleel loolu dafa baax ci dëkk parce que loolu mooy tax mu am réconciliation loolu mooy tax dëkk bi mun a am départ bu bees France bi ñu defee révolution bi guillotine ay nit mu am ay assassinat am ay meurtre bi ñu toogee ba jëmmu jamono dañu def loi d'amnistie fàtte loolu yëpp nit ñi jël départ bu bees Afrique du Sud bi ñu génnee ci apartheid bi dañ def amnistie fàtte lépp pour ñu jël départ bu bees nit ñi mun a juboo Sénégal tamit bu ñu toogee ba xalaat nekk benn affaire dañ ko fàtt dooy war a fàtte pour Sénégal jël départ bu bees nit ñi dañ war a xam ne que loolu dafa baax euh, lu munti doon rek lu munti doon léegi bu fekkee ne ci li def actualité bi nii amnistie bi ñuy wax bu concerné xalifa Sall ak Karim suma position daf ci leer damay wax toujours man dama gëm ne que amnistie dafa baax mais amnistie dañ koy jox ay forme kenn du amnistier ay fait yoo xam ne démb ak barki démb la am li ñuy amnistier mooy fee yoo xam ne toog nañ ay génération ñu war a jël départ bu bees xam nga boo boo boo boo boo ubbee cimetière suul fa ay nit ba tëj ko di nga dem ba jëm jamono fi ñu tabax fii cathédrale euh, de Dakar cimetière la woon dañuy dem ba jëmmi jamono ñu ne cimetière bi dañ ko war a raser parce que dañ fi bëgg a def leneen mais buñ koy raser dañuy xool est-ce que ñañ fa suul amul ñu leen concerné yu continuer di leen fàttaleku bu amee doom am sët nga raser cimetière def nga lu ëpp donc booy amnistier tamit da ngay xool fee yi ngay amnistier est-ce que ñi mu concerné pare nañ pour fàtte donc yooyu yëpp dañ ko war a xool amnistie dafa am ay forme dafa am dafa am ay ay diir yu ñu koy def ak yu ñu ko dul def donc gëm naa ne que amnistie lu baax la mais gëm naa ne mënuñ amnistier nem à n'importe quel moment waaw xam nga nag euh, doon nañ ko wax ci ay interview yu bëri mais nit ñi daanu ñu déglu parce que bi ñu créé union citoyenne bunt bi 2007 dañu teg ay jalon ci suñ kanam dañ nekk bu defee 10 ans lii la ñuy def bu ñu defee quinze ans lii la ñuy def bu defee 20 ans lii la ñuy def ci interview yu bëri nit ñi dañu naan ah yéen kenn xamu leen ñu ne leen ñun buggaguñ ñu xam ñu buñ ñu waree xam. buñ fa tolloo nit ñi dinañ ñu xam donc liggéey bi dañ koy def nga boo gisee nii bi nga fi duggee gis nga xale yi xale yi toog euh, di liggéey liggéey bi kenn kenn du leen gis euh, bureau bi brandé wuñ ko boo mun nga fi romb sax xam ne doo xam ne que union citoyenne fii la nekk parce que liggéey lañ gëm gëmuñ euh, fës sous le su les lampions loolu du suñu affaire ñun li ñu gëm mooy liggéey te liggéey boobu pour Sénégal la donc pendant dix ans Union citoyenne da doon jàng wax naa leen ko 2007 ba 2017 Union citoyenne da doon jàng 2017 bi ñu yaakaaree ne que mokkal nañ ñu jéem a tari tari bi motalewul ah waaye am na lu bëri luñ jàng ci téere bi mokkal nañ ci lu bëri ñu continuer waat di jàng 2022 dinañ tariwaat waaw gëm nañ ne tari bi du motandi tamit 2024 dinañ tariwaat waaw wooy dinañ tariwaat donc dañuy jàng suñ jàngee ba diir ga jot ñu génn tari lu tax union citoyenne ñëpp di ko wax fi mu nekk parce que dañ def travail bu méthodique mun naa ko wax sax travail bu scientifique c'est-à-dire avant 2019 union citoyenne gëmoon na ne que élection locale yi xëj na dinañ ko dàq mais comme date bi 2019 la woon avant 2019 suñu caution pare woon na suñu liggéey pare woon na xamoon nañ naka lañ ciy demee biñ ko dàqee ñu continuer di liggéey moo tax keroog ba ñu ubbee ñu ne kaay leen déposer caution ñun ñoo njëkk a dem déposer suñ caution Union Citoyenne mooy parti bi njëkk a déposer caution am ci Sénégal bi ñu déposer suñ caution ma dajale xale yi parce que xale yi tous les jours ñun nañu am école du parti di leen jàngal dajale xale yi ne dañ war a dem élection étape yi lii ak lii ak lii la d'abord dañ war a préparer dossier cent cinquante dossiers yi génn fii ci bureau pôle élection bi yëpp c'était impeccable yëpp huit huit rejet lañ am yëpp tout était impeccable parce que xale yi dañ lay oo nga toog ñu ne la yow sa commune lii moo fa am ci conseiller ñii ñooy nekk ci majoritaire bi ñii ñooy nekk ci proportionnel ñu defaral la kayit bi wan la ko tell la ko jox la jël clé USB dugalal la ci fichier physique bi dugalal la ci maquette bulletin bi dugalal la ci logo parti bi dugalal la ci le texte qui régit le processus électoral ma dajale après mandataire u Union citoyenne yi nekk ci Sénégal yëpp ñu dajale leen maison de la presse tàggat leen pendant tout une journée jàngal leen naka la ñuy dem élection gars yi cinq minutes lañ def ci commission yi dañu ñëw rek déposé gars yi xool ne ah yéen de seen dossier bi amul dara luñ ciy wax ñenn ñi am problème c'est parce que peut-être ci ay présipitation dañu kii ma leen di masawu parce que préparer élection ba mu jot nga déposer ñu rejeter sa dossier lu métti la mais toujours ci jàng lañ nekk jàng nañ foofu gis nañ que def nañ erreur erreur boobu dootuñ ko defati donc méthode rek méthode organisation et méthode ñun noonu la ñuy doxee dañuy planifier ne lii ak lii la ñuy def nii ak nii lañ koy defee nii ak nii lañ koy defee lii lañ euh, lii la ñuy euh, lii lañ ci dépenser et cetera parce que tamit dafa am ay coûts <coughs> loolu moo tax euh, ñu réussir suñu démarche jeexul parce que boo déposer dossier di nga nommer ay plénipotentiaires loolu ci semaine bële passé xale yi def nañ ko boo paree ci plénipotentiaires yi di nga jàppale gars yi ñu nommer seeni représentant ci bureau de vote yi nommé mandataire ci lieu de vote ci liggéey boobu lañ nekk diggante 24 des léegi ak 24 décembre dinañ ko pare continuer ba 10 janvier pour mandataires yi après nag jëm ci surveillance su vote bi jour ba te fii dañu am tout le matériel qu'il faut bu ngeen kii ngeen dinaa leen yóbbu ngeen visiter pôle bi xool ordinateur yi nak xale yi di liggéeyee xool tâches yi ñuy am journalièrement ci tableau bi vraiment organisation et méthode noonu la ñuy doxee te loolu lañ bëggal Sénégal moo tax ñuy tabax plan bi tudd le euh, suñu programme bi ñu war a won sénégalais yi en tout cas dinañ ko déployer sous forme de prototype ci communes yi ñu nar a gagné bu ñu ko yàlla mayee après dinañ ko déployer 2024 incha allah bu ñuy dem élection présidentielle plan boobu mu ngi tudd le Sénégal entreprenant et solidaire ñu tabax ko ci cinq axes premier axe bi nekk industrialisation de l' économie sénégalaise dañ gëm ne que industrie mooy jur koom ci dëkk mooy indi liggéey deuxième axe bi muy modernisation de notre administration dañ gëm ne que administration sénégalaise dafa yéex ah usagers yi dañuy xaar dañuy même pour am extrait de naissance léeg-léeg da ngay voyager xaar vingt quatre heures et cetera loolu dafa ànd ak digitalisation muy loo xam ne ñun dañ ko pare modernisation boobu parce que dañ tabax euh, li ñuy wax le centre national du registre moo tax bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fa yeggee dinañ expliquer gars yi dañu am dañu dañu xalaat benn ministère ci architecture gouvernementale Sénégal bu ñu wax le ministère des données parce que information mooy dëkk nit dëkk bu amul information du mën a déployer politique publique troisième axe bi mooy redynamisation de notre coopération xam dañ naan Sénégal c'est un grand pays de diplomatie mais dañuy dem defi diplomatie à six mille kilomètres à douze mille kilomètres alors que fii ñu jege dañuy xuloog ñoom Sénégal day xuloog Mauritanie di xuloo Guinée léeg sax mu am ay friction ak Mali alors que c'est le même peuple donc coopération bi fii la war a tàmbalee quatrième axe bi mooy euh, les services universels de base dafa jot sénégalais bu buggee feju feju sénégalais bu buggee euh, yónnee lettre mu ngi ko yónnee par la poste gis ngeen ni poste mel euh, sénégalais bu buggee am téléphone am ko rapidement et cetera y a des choses yoo xam ne euh, c'est basic école bi et cetera et enfin cinquième axe bi mooy réorganisation du territoire boo seetloo Sénégal politique yi chaque fois boo gisee découpage administratif Sénégal rek c'est pour régler un problème politique ñu dem ba nga xam ne Sénégal dafa mel ni fromage gruyère nañ ko dag daggate daggate daggate daggate ba nga créer ay ay entités yoo xam ne ils ne son pas viables da gis ay commune yoo xam ne seen budget motul cinq cent mille ñu ne Sénégal cinq grands pôles la war a nekk le grand nord le grand sud le grand est le grand ouest et le grand centre bu ci nekk ak spécialisation yam ñu jëm ci kanam daal di tabaxaat Sénégal bi ñu bëgg. en arsenal bi euh, boobu mooy gunge la mer sortante moo tax nit ñu bëri jaaxle ñu ne comment le gars yi def en vingt quatre heures ñu defar list c'est-à-dire motu sax vingt quatre heures parce que quatorze heures la staffu maire dugg ci pôle élection bi vingt trois heures ñu génn ak liste yu pare dem déposer ji loolu préparation moo la koy may boo paree bu fekkee ne yow lépp maquette nga ko nga xam ne da ngay dugal rek amul problème mais bu fekkee da ngay ñëw ngay analyser di xool lii ak lële naka laa koy defee ñun pare woon nañu donc ñoom bi ñu yegsee bi ñu d'accordee ci format yi parce que encore une fois union citoyenne dafa am ses listes propres am des listes alliées ñun du ñu dugg ci liste alliées yi dañ leen di jàppale pour ñu dem mais duñu leen wax def leen nit kii fii def leen nit kii fële parce que dañ gëm ne que ku ci nekk booy ñëw tamit da nga bi législateur di ko di ko ko tere ba ñuy tëgg ba ñuy tëgg constitution yu njëkk ya 1960 ba léegi dañ ko koy tere lu tax ñu jékki-jékki bugg ko ko jagleel c'est ça le problème lu tax ñu jékki-jékki bugg néewal di solution assemblée nationale lu toll ni pencu ndawi réew mi nga xam ne Sénégal yépp ñoo voté ne ñii ñoo ñuy représenté ñii ñoo ñuy toogal nga jox nit koo xam ne remplaçant la nga xam ne loi daf ko ne rek yow toogal fii pour organiser ay élections ñu am président bu bees nga permettre ko mu def loolu loolu lu garaaw la ci suma gis-gis bon maa ngi koy jàngat leeragul torop ci suma bopp maa ngi koy jàngat je pense que fii leeg fii leeg ki fan dinaa comprendre dafa complexe dafa complexe foog nga xool bu baax mais en tout cas ci njëlbeen ga li ma gëmoon li ma gëmoon mooy que ne njuumte la woon mais bi ma déggee ñu bëri wax ni euh, pour man euh, lu ñu bugg la lu ñu bugg la Euh, pourquoi ñu bëgg kii remplacer président de la république bu amee parce que euh, ñaanuñ ko yàlla président de la république dara di ko dal ba bañ koy remplacer bu amee ñu permettre ko mu dissoudre assemblée nationale affaire bu graaw la et parce que mun na indi mun na indi vide juridique parce que euh, nit ñi dañuy wax trois mois la rek mais <coughs> xam nañ délai ni ñu koy étirer fii ci dëkk bi am nañ toujours ay moyens pour étirer ay délais pour xëcc. lu waroon nekk 3 mois ñu def ko 6 mois mu jëm gis ngeen élection yi rek mu jëm at lée léeg ba ñaari at donc moo tax législateur bi defoon encadré woon ko noonu pour que yenn yi mën a bañ a nekk. Euh, euh, wax euh, waaw waaw waaw le pour le moment waxtaanaguñ ci. waxtaan waxtaanaguñ ci parce que depuis séance boobu tooguñ waxtaan gisantewu ma ak ñoom. Euh, non non non oo oowuñu ma oowuñu ma parce que ñu ngi woon continuer woon ci liggéey bi démb rek ñu ngi woon encore commission technique di xool ay loi de ratification yi ñu war a def. non non no foogu ma ne foogu xam nga loolu liggéeyu parlementaire la xam nga député amul mandat mandat mandat obligatoire. donc député moom du du groupe parlementaire moo koy wax defal lii defal lële euh, li may def dama koy def ci suma aqlaay tàlla di ko def parce que loolu laa gëm ni moo baax pour Sénégal donc bu ma keneen expliquer que ne li nga def baaxul ak ay argument yu leer damay dama ciy d'accord mais pour le moment euh, gëm naa ne que position bi ma jël mooy position bu baax bi jusqu'à preuve du contraire waxtaanuma ceeg ñoom xëj na suba dinañ gisante am nañ plénière suba non non non jafe-jafe moom mënul am jafe-jafe mënul am parce que xam nga euh, man maa demandé pour dugg ci groupe parlementaire bi donc damay respecter structure bi mais comme ni ma la ko waxee voter da koy def en ton et conscience booy booy booy booy liggéey liggéeyu parlementaire nit warul a tënk donc dama nekk ci groupe parlementaire bi parce que je suis un homme di obéir à la marche du groupe parlementaire par exemple bu ñu ma ne tey doo jël parole du ma jël parole parce que groupe bi dafa day def débat organisé ñu ne kii ak kii ak kii mooy wax mais su ma waree jël parole li ma xalaat laay wax kenn du kenn du dugal dara ci suma génne waaw loolu tamit euh, may wax encore une fois amul benn nit bu ne bu mun a taxaw ne ñi nekk assemblée yëpp dañu war a voté lii donc ñoom dañ def ak seen xalaat nañ bàyyi ku nekk tamit xalaat def ay conviction yam doog a jël position man loi bi biñ koy bind euh, ci euh, principaux instigateurs yi kon nga leen day permettre ay négociation politique ay négociation de position du am ñun gëmuñu loolu li ñu gëm mooy que ne nit ki na bokk ak ñun vision na bokk ak ñun bëgg-bëgg na bokk ak ñun ni mu gisee Sénégal ñu ànd ak moom donc Arsenal boobu mooy gunge euh, la mère de la ville ñun duñ doo ñu gis peut-être sur le terrain ak moom mais derrière liggéey bi ñu ngi koy def bi ngay ñëw gis nga camion bi ñu ko defaral fii Union Citoyenne moo ko préparé et tout pour jagleel ko moom mooy ànd ak moom dans ses sorties tous les jours pour mun a def liggéey bi programme bi xale yi ñu ngi fii di ko di ko soutenir lu mu soxla day oote parce que xale yi ku ci nekk dafa am ay zones yooyu gérer ku ci nekk suñu candidats yi tamit ñoom xam nañ dañ naa ah man Kumba moo yore suma dossier dañu o directement Kumba wala euh, Sali moo yore suma dossier ñu o directement Sali Sali xam na li mu war a def fan la tollu est-ce que la war a joxe est-ce que est que ce que ñu avancé. alors le grand message bi may lancé mooy que sénégalais yi nañ bàyyi toog seen kër naan politique baaxul tollu nañ jamono joo xam ne engagement citoyen xam nga citoyen dafa am droit mais dafa am tamit devoir ci devoir yooyu mooy participer à la vie de la cité nit ñi mënuñ toog à la marge di kaas niñ dugg ci langue politique bi surtout ndaw yi xale yi lay oo ci langue politique bi ah comme ni ma la koy waxee man ay xale rek laay liggéeyal depuis 2017 suma campagne ay xale laay àndal su may liggéey fii ay xale laay àndal parce que pour man ñoom ñooy ëllëgu dëkk bi il faut que xale yi ñoom ñëpp ñëpp dugg ci politique mais politique bu set politique bu rafet politique boo xam ne dañ koy def ci yar ak teggin saaga xuloo xeex amul place ci politique nañ ko arrêté violence boobu tant que ñu ngi koy continuer ci langue politique bi on va envoyer une mauvaise image te ñiy xeex ñi leen yónni ñuy xeex xeexuñu ñi leen yónni pour ñuy xeex ñu ngi waxtaan guddi ñu ngi waxtaan bëccëg ne ñu def attention bu kenn yónni doomu jàmbur muy xeex ci mbedd mi di ci dee parce que ñi leen di yónni xeexuñu reyantewuñu donc c'est important li ñuy def ñu def ko dans la paix et la concorde on peut être des adversaires politiques aujourd'hui et demain être des alliés dans un gouvernement donc comme Sénégal moo ñu soxal nañ jëf ngir jëriñ Sénégal. Merci Ousmane.